féete ndakaaru féete ndakaaru moom mu sosoo boppam moom mu sosoo boppam ne naa ci def sama tànk ne naa ci sama tànk tubéy lu ñu nekk ma nekk lu ñu nekk ma nekk ci lu ñu nekkul lu ñu nekkul nekkuma ci moo tax ci weeru koor bi moo tax ci weeru koor bi ci masaalikul jinaan ci masaalikul jinaan nañ ko fay amee nañ ko fay amee bis bu ne bisu ndakaaru keroog bisu ndakaaru keroog bañ fa demee bañ fa demee xam nañu bis bi ndakaaroo xam nañ ñi bis bi ndakaaroo ko moom la waroon ci xéwal la waroon ci xéwal ak ci taatagal. ak ci taatagal. te nit ña fay ñëw. te nit ña fay ñëw. ca xéwal yi ca xéwal yi. bay na ci waar wu moom honorable député maire Barthélémy Dias bay na ci waar wu rëy. kon nag bu loolu amee ñu la nee na bu loolu amee ñu la koy seetal Mbàkke. loolu rek ngeen di sant. te loolu rek ngeen di sant taalibe yi. daañu la ñaan. daan nañ ñaan. nga dolli ko ñaan. nga dolli ko ñaan. yàlla kattanal ko yàlla kattanal ko. yaatal dënnam yaatal dënnam yokk mën-mënam yokk mën-mënam ndax mbébétam ci ndakaaru ndax mbébétam ci ndakaaru ak ci taalibe murid yi ak ci taalibe murid yi ci kër sëñ Touba ak ci kër Cheikh Ahmadou Rasul lu ñu bir la loolu lu ñu bëgg la lu ñu mbir la lu ñu wér la lu ñu lu ñu dëgg la lu ñu wér la lu ñu dëggu la moo tax bi muy ñëw tey noo tax bi muy ñëw tey képp koo xam ne bëgg nga ànd ak man ci liggéey. ne képp koo xam ne bëgg nga ànd ak man ci liggéey. jóg leen ñu delluwaat sant sang bu tedd. jóg leen ñu delluwaat sant sang bu bi. ndax am na yàqin bu wóor ni. ndax na yàqin bu wóor ni. sëñ Muntaxa Basiru. sëñ Muntaxa Basiru mooy Serigne Touba. mooy Cheikh Ahmadoul Bamba Xaadim Rasul. soo jàkkaarloo kanamam gi rek. nee na soo jàkkaarloo kanam gi rek. ak réewam gi rek. ak réewam gi rek. lépp loo amoon ci njàqare ak. lépp loo am ci njàqare ak mbëbët. na nga na la wóor ni. na la wóor borom saafara na ko. looloo waroon ñëw tey. loolu moo waroon ñu ñëw tey. du bisu ziar sax. du bisu du bisu ziar sax. waaye. si suñu kilifa gii nga xam ne Mbacke ñu ngi koy sant. waaye sant gu amul suñu kilifa gii Mbacke ñu koy sant sant bu amul ab. muy Serigne Cheikh Mbacke. muy Serigne Cheikh Mbacke. ci Mbaye Touré. jaare ci Mbaye Touré. li waroon am am. ba li waroon am am. xéwal gu rëy la. gu rëy la. yëg nañ ko bu baax yëg nañ ko bu baax. sant nañ sant nañ bu baax. léegi rek laata ñu fi agsi. nee na léegi rek laata ñu fi agsi. mu ngi ñuy wan ay berne yoo xam ne. moo ngi ñuy wan ay berne yoo xam ni. ñenn ñi dañoo yàkkamti woon sax ba ni. ñenn ñi dañoo yàkkamti woon ba ni. nañu xéwlu ba noppi. nañu xéwlu ba noppi door a agsi ci yow. door a agsi ci yow. ñu ni lépp xéwal ñu ni lépp xéwal la. dañu ñëw ziar la. ñëw ziar muy xéwal. muy xéwal. ñu dellu ci xéwal yooyu. ñu dellu ci xéwal yooyu. xéwluwaat xéwluwaat. kon Mbacke kon Mbacke Balla yàlla nga fi yàgg yàlla nga fi yàgg lool te ànd yoon bi nga sagu yoon bi nga sagub diine nga sagu diine nga sagub réew mi sagu réew mi nga kàddu gi saa yu jógee nee saa yu jógee waxuma murid bi waxuñu murid de waxuma ñi gëm yàlla waxuñu gëm yàlla de waaye képp kuy doomu aadama waaye képp kuy doomu aadama dina rafetlu kàddu dina rafetlu kàddu yi ndax kàddu dal la ndax kàddu dal la kàddu fàttali la kàddu fàttali la kàddu taalibe la kàddu taalibe la kàddu kilifa la kilifa la yàlla na nga fi sax yàlla na nga fi yàgg lool te ànd ak wér neen li ñuy dënmal nag weer wi ñuy dënmal weer wi ñuy dënmal nag di di safar ak màggal gi ñu jublu ak màggal gi ñu jublu lépp lu ci sëñ bi am yéene lépp lu ci sëñ bi am yéene yàlla na ko suñu borom matale yàlla na ko suñu borom matale yàlla na màggal gi xam ni na màggal goo xam ni màggal gu ñëw moo ko mooy màggal gu ñëw mooy dàq ñu yàgg fee ñëw ñu yàgg fee ñëw yàgg leen fee yàgg leen fee fekk lii ma léegi. nee na lii mu wax léegi. ci Barthélemy Dias jaas Barthélemy Toye Dias mi. xam nga ko bu baax. ñun ay julli lañu. ñun ay julli lañu. taalibe murid lañu. ñun taalibe murid lañu. waaye moo ñuy soññ. waaye moom moo ñuy soññ. ci taalibe li mu war a def. ci taalibe li mu war a def. ak nu mu war a taxawee ak nu mu war a taxawee. ku baax la nee na ku baax la. ku yiw la ku yiw la. ku yaatu la ku yaatu fonk doomu aadama fonk doomu aadama la. taalibe la ab taalibe la. li yàlla wax ci alxuraan daal yàlla wax ci alxuraan. gëm naa ci moom gëm na ci ba muy wax ndax ba muy wax. wala xadd karam naa bani aadama la wax te mu ngi ci moom. neen te mu ngi ci moom. moo tax bu ñu ñëwee tey mu am bis bi yàlla ak moom. neen ñu am bis bi yàlla ak moom. daañu sàkku ci yéen. daañu sàkku ci yéen. ngeen ñaanal ko. ngeen ñaanal ko yàlla kattanal ko. yàlla kattanal ko yàlla dooleel ko. yàlla dooleel ko jàppale ko. yàlla jàppale ko ba mbëbët yi mu am. ba mbëbët yi mu am suñu borom matal ko suñu borom ko. jàmm rek lay ñaan. jàmm rek lay ñaan. wax na ko ci biir wax. wax na ko ci biir waxam. daan nañ fi ñëw. daan nañ fi ñëw. di ànd ak magam. di ànd ak magam. muy xalifa Sall muy xalifa Ababacar Sall. nga miin ko lool. kàddu yu xalifa yi démb yi. moom lay yeesalaat moom lay yeesalaat. di yeesalaat di yeesalaat. kóllëre kóllëre. jàppale jàppale. ak fa seen liggéeyal ak fa seen liggéeyal Serigne Touba. loolu moo doon kaddu nee na daal moo doon kaddu gi Mbacke Balla délégation bi yaatu na. nee bi yaatu na. dafa bëri ñu bëri bu ñuy wax. dafa dafa ñu bëri bu ñu dee wax. dañ naan dañ naan. li duuf ci nag bi li ci nag bi. xajul ci cin xajul ci cin yi. déedéet déedéet. da nga naan li duuf ci nag bi. da wax lu duuf ci nag bi. xajandoowul ci xajandoowul ci cin bi li ñëw li ñëw. macha allah ci délégation ci délégation. buñ doon lim buñ doon lim. fi jóge dañ fi jóge ay maire nga fi ay maire nga fi ay directeur nga fi ay chef de service ay chef de service nga fi ay agent nga fi ay agent naa daal mën naa ni la Ndakaaru ëmb la Ndakaaru ëmb ca ville de Dakar ca ville de Dakar ca kilifteefu Barthélémy Toye ñëpp nga fi ànd ak nag sa soppe bi ànd ak sa soppe bi nga xam ni yàgg nga ak moom bi nga xam ne yàgg nga ak moom moom mooy mooy suñu yoon aussi mooy suñu yoon ci yoon wi ci yoon wi muy Badara Baro muy Alaaji Badara Baro ku baax ku baax am taalibe ku am taalibe ku yiw ku yiw ku jullite ku bari yërmande ku bëri yërmande moom it yàlla na nee na moom na ko yàlla kattanal nee na kàddu yooyu daal la ñu bëggoon yëkkati la ñu bëggoon yëkkati di la ziar bu baax di ñaan mbàkke sëriñ bi mu ne asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu nee na mi ngi leen di delloo ab nuyoo bu baax di ko teg ci loxol seen njiit di seen kilifa gi ngeen àndal di Barthélemy Dias ak mbooleem délégation bi ngeen àndal bépp te ngeen jaar ci sëriñ Cheikh Ibrahima Mbakke mi nga xam ne mooy seen bunt ci sëriñ bi te diggam ak sëriñ bi yéen ñëpp xam ngeen ko waaye diggam ak Cheikh Mouhamadul Basir it noonu la demee. nee na ak nitama lépp ma nee it nit ku baax la ngeen jaar it nag ci sëñ Bay ture mi nga xam ne moom it kenn la ci nun di kenn it ci sëriñ bi way juróom alaaji Seex Touré nekkaloon na sëriñ Touba ngeen ngi neew diir bu yàgg a yàgg di ko jege sëriñ bi lool kon bu ngeen yemoon ci Seex Ibra rek ak moom day mel ne agsi ngeen ci moom ba ngeen siyaaree sëriñ bi itam loola daanaka doyoon na day mel ne agsi ngeen ci moom mboo di nuyu nag mbooleem ñi nga àndal ñëpp te bu ci tuddee nag sëriñ Badaro Baro mii nga xam ne nga xam ne kóllëreem ak Cheikh Mamadou Bachir di ab taalibe di nit ku baax moom itam ayu gii rek ñëw na fi ndax diggam ak sëriñ bi moo demee noonu nee na lu matul weer rek moom Cheikh Mamadou Bassir jullee na këram timis di nuyu sëriñ Cheikh Gueye ci kàddu yi nga xam ne yëkkati nga ko xam nañ sa taxawaay bu baax ak mbooleem ñi nga àndal ñëpp nag buñ la tuddee rek ñëpp tàbbi nañ ci biir di lu tànk yi di ko rafet lu bu baax ndax tànk yi kat jëkkut tey ndax ràññ nañ la bu yàgg nga daan ànd ak sa mag ak sa xarit di Ousmane Tanor Dieng mu doonoon kenn ci sëriñ bi di nit ku baax ku am wëllëre nit koo xam ne ak cofeelem ci Cheikh Mamadou Bachir akuk jàppam amutoon ab ab ñu seqoo nit nag lu baree baree bari muy ko yàlla may am xel te xam réew mi te am ak ràññee daanañ seq lu bari ci ay waxtaan ak ci ay diisoo moo tax sëriñ bi nee na waxtu wu ne am xelam day dem ci moom te ànd ngeen fi lu yàgg te booba jamono ji metti na waaye ngeen ànd ak seen ngor ak seen jom ak seen fulla loolu rek la ràññi ci yow nag naka jekk ba yàlla def suñu borom indi la fi tey nee na loolu moom dogalub suñu borom la ndax yàlla moo xam moo xamit la muy def kon bu yàlla defee mu teg la ci bopp nit ñi loo nga yilif ndakaaru loolu du cër bu tuuti kon ñi ngi lay sant bu baax di la yóbbante nag ab nuyoo ci sa mag ah, di xalifa Ababacar sàll moom itam di xaritub sëriñ bi di wëllëreem di waxtandoom it nag bu baax nee na ki démb rek moo alaaji badara baro mi daje nañ ci màggalu daaru xudóos kër sëñ abdourahman mu di ko feddliwaat diggante bi ak kóllëre gi bu baax yow itam ñi ngi lay ñaanal bu baax mission bii nga yor nga am ci ndam ndax xay na liñ toog bariwul waaye nag mboolem ñi la jege ñëpp li ñuy seere ci yow lenn la mooy ku rafet ab xol nga am na ci ñoo xam ne sax dañuy wax ne sag tabe ak sag yéwén loolu nag yàllaa koy def ci nit kon nag loolu jikko la ju rafet joo xam ne na ko gën a jëme kanam bu baax ba ci desit nag mooy xam nañ ne yow ku sédd yoonu murid nga ku fonk yoon wi nga ku leen jox ab cër nga loolu nag ñëpp ko xam ci say kàddu ak say jëf kon loolu doy na sëkk kon daal ñi ngi leen di sant rek di rafetlu dikk gi di leen ñaanal yàlla yan bii nga xam ne réew mi moo leen ko yan mu àgg te ngeen am ci ndam jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullah